di journée boo xam ni jàmm lañ ciy ñaan waaye di journée boo xamante ni bii guddi journée Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye lépp ñu xëy jàng lu mat juróom-benn fukki kaamil ak juróom-benn muy 66 kaamil yoo xamante ni bii jàng nañ ko yéene ko réew mi yàlla lii nga xamante ni moom lañ war a dugg suñu borom def ci jàmm suñu borom def ci yiw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa lii nag. defuñu ko ngir kenn dañ ko def ngir yàlla yàlla subhaanahu wa taala wàcce ci réew mi jàmm ndax tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ni bii ku ko tagg yàlla julli ku julli ci moom benn yàlla julli ci yow fukk waaye ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer waaye ku julli ci Seydina Muhammad téeméer yàlla subhaanahu wa taala julli ci yaw junni fa tabaarakallaahu looloo tax ñu dajale fi mbooleem boroomi xam-xam yi ak ñi nga Seydina Muhammad lanu sallallahu alayhi wa sallam ñu war ñëw fii teew jàng li nga xamante ni bi moo di téere bi yàlla bi alquranul karim waaye téere indi téere mag ñi di tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom subhanahu wa taala jàmm ci réew mi ndax réew mi amuñu luddul mom moom réew mi lañu dëkk Sénégal lañu dëkk mënu ñoo dem fenn fa tabarakallah ko xamanteni bi nak fi nga dëkk bu takkon do am fo jëm da ngay fexe ba réew moomu bu ñu nekkee ci ay jafe-jafe nga dadi ci juk nga dadi ci taxaw ta alquran moo ni wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum qasa yàlla neena na na ngeen wattandiku fitna kon élection yi ñuy dugg ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla na ci yàlla soti ndox mu seddu guyu ci barke barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii ñu def nag ñu ngi ko def ñaanale ko ki nga xamante ne bi mooy njiitum réew mi di président Macky Sall ñun dey engagé wu nañu ci moom pour di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm ñëw gi nga xamante ni bi moom lay war a ñëw cees incha allahu ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ñëw yàlla na ko yàlla aar la yàlla joxoon yonent bi muy wallahu yaxsimuka min an naas buti yàlla bu boobu yàlla na ko aar wa bi mooy jàmm jàmm la ñu woote ndax Sénégal dafa doon dëkk boo xamante ni bii dëkku teranga la waaye dëkku jàmm la li nga xamante ni bii moom la nit ñi bëgg muy jàmm ñu ngi ñaan sunu borom élection yi nga xamante ni bii ci lañu ñu dugg ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na ci yàlla def ndox mu sedd guyu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu lii bu buñ koy def duñ koy ñaanal waa àdduna bi yëpp du ko ñaanal réew mi di ñaan sunu borom lii xamante ni bii tey waa Thiès xamante ni bii muy journée la paix nga xamante ni bii jàmm rek la ñu bëgg ndax nee naa Sénégal jàmm rek moo fi xaj ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na fi yàlla sokk yokk fi jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nag ñu ngi koy ñaanal ki nga xamante ni mooy njiitum réew mi di président Macky Sall yëg nañu ni tey jii le 16 février bi nga xamante bi ñooy tagg yonente lii ma wut si yal na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allah bi aziz asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu